Birama Ndiaye. À la présentation, Pape Abdoulaye Dieye aux manettes. Merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure du bulletin d'information que nous démarrons avec euh, le vote du budget de la euh, de la Chambre de commerce et d'industrie de Matam, la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de la région de Matam. a voté hier son projet de budget pour l'exercice 2020 qui s'équilibre en recettes entre recettes et dépenses à la somme de 71 150 000 francs 694 contre 64 157 960 francs en 2019, soit une augmentation de 699 000 Euh, deux cent soixante-treize francs donc ce budget voté à l'unanimité est composé de cinquante-quatre millions euh, quatre mille francs CFA en dépenses de fonctionnement et dix-sept millions soixante-quatre mille deux cent dix-neuf en investissement a précisé le docteur Mamadou Diadje, président de la Chambre de commerce de Matam. Et puis un budget d'urgence, 10 milliards de francs CFA pour lutter contre les inondations a été dégagé euh, l'enveloppe par le chef de l'État. Les 3 milliards serviront d'aide aux sinistrés et les 7 autres milliards en accompagnement aux autres structures de lutte contre les inondations, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, l'ONAS. Donc le président Macky Sall a fait la déclaration hier soir. Nous l'écoutons. au micro de Sud FM. Je pense que quelque chose d'urgent doit être fait. Je me réjouis déjà que les sapeurs-pompiers ainsi que l'ONAS et tous les services de l'État sont déjà à pied d'œuvre et nous allons mobiliser des ressources tout à fait nouvelles pour que ce travail soit fait, mais aussi dans les régions, puisque dans les régions, nous avons noté également beaucoup de pluie qui a été enregistrée et des dégâts importants parfois, que ce soit à Sokone, à Palmarin, à Khombol et, dans d'autres localités du Djolof. Euh, nous avons eu de fortes pluies, mais le dispositif est mis en place. Les 14 gouverneurs, les préfets, sous-préfets, toute l'administration des, des sapeurs-pompiers au niveau national, euh, l'armée au besoins, tout le monde sera mobilisé pour venir à bout de ces eaux euh, stagnantes ou ruisselantes et qui ont fait beaucoup de dégâts. Alors, pour accompagner ces efforts, j'ai décidé de mettre en place un budget d'urgence de dix milliards, 10 milliards de francs CFA, dont les 3 milliards serviront d'appui direct aux populations sinistrées sur la base des rapports des gouverneurs, préfets et sous-préfets en relation avec les maires qui sont dans leur localité. Et ces 3 milliards serviront de, de cash transfert d'appui donc aux financiers directs par famille mais aussi d'achat de produits phytosanitaires, de matelas et de d'appuis divers. Mais aussi, il y aura une partie vivre pour des familles qui ont aussi perdu jusqu'à leur ration euh, mensuelle. Et les sept autres milliards, justement, serviront à accompagner les services de sapeurs-pompiers, de l'ONAS et de l'achat de matériel supplémentaire pour, en tout cas, l'évacuation des eaux de pluie. Le gouvernement va présenter prochainement la situation du plan décennal de lutte contre les inondations et surtout un nouveau schéma pour que des financements complémentaires soient trouvés afin de boucler ce programme décennal. Euh, le chef de l'État Macky Sall à l'instant qui revenait sur le déblocage d'une aide d'urgence de 10 milliards de francs CFA destinée à l'appui au sinistrés et à l'évacuation des eaux. Gestion des inondations à Tivavone. Le mouvement And Defar Tivavone déploie une dizaine de camions hydrocureurs et octroie un important lot de matériel de pompage et de désinfection au service d'hygiène Tivaouane Babacar Sow. Gestion des inondations à Tivaouane, une ville où les populations de plusieurs quartiers ont été assaillies par les eaux pluviales de ce week-end. Le mouvement And Defar de l'opérateur économique Abdoulaye Ndiaye déploie une dizaine de camions hydrocureurs pour le pompage de ces eaux pluviales. Un geste accompagné de dons d'un important matériel de pompage et de désinfection au service d'hygiène de Tivaouane. Serigne Mbaye, chargé de communication du mouvement And Defar. Accompagner les populations de la ville de administrés de la ville de Tivaouane. Nous avons constaté que la seule solution à laquelle les populations s'attendaient, c'était véritablement le pompage des eaux. C'est en ce moment que le président de la République, son excellence monsieur Macky a lancé le déclenchement du plan Orsec. Mais monsieur Abdoulaye Ndiaye à partir de ce moment-là, des dispositions ont été prises avec la mise à la disposition de 10 camions hydrocureurs qui ont aujourd'hui permis la plus importante qui consiste à régler la problématique de l'assainissement de la ville de Tivaouane. Comme nous le savons, c'est une ville qui accueille chaque année des millions et des millions de pèlerins. Donc, il y a urgence de prendre en charge la question de l'assainissement de Tivaouane. Un geste apprécié sa juste valeur par le service départemental de l'hygiène qui, selon son chef à Tivaouane, revient sur l'utilité de ce matériel en cette période où les insectes et les virus sont dans service départemental de l'hygiène à Tivaouane, salue le geste. dernière génération, des appareils motorisés de version poudreuse et de version liquide, et des appareils électriques de dernière génération, des appareils avec des produits désinfectants comme Tivawan Babacarso pour Sud FM. Birama Ndiaye sant leen gërëm leen gërëm bu baax kii di Pape Abdoulaye Dieye mi féete ci xarala gi euh, xibaar yi ñu doore ko ci chambre de commerce d'industrie d'agriculture bu Matam bi nga xamante ne niki démb la daal di woote lu jëm ci wàllub budget atum mille vingt loolee nag moo ngi fa yéene dox diggante recette ak dépense ñoo ko daal di xayma ci juróom-ñaar fukki million ak benn yu toftal fanweeri junni ak euh, téeméer ak ñaar fukk ak fukk juróom-ñeent ci suñu koppar ci noonu itam gis nañu nag lu toll ci téeméeri junni ak ñaar fukk ak lu teg daal na ci yokk niki atu ren ji euh, budget boobee nag dañ ko wote te amut benn jeexi jaax ak it benn euh, werante bi nga xamante ne daal dinañ ko nemmeeku bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moom mooy njiitam di docteur mamadu Ndiadé. budget bi nga xamante ni itam daal di nañ ko génne bokk na ci ngir rek daal di wàllu ñu daal di loru ci mbënd bi fukki milliards la ci suñu ñett yi dañ koy dimbali ña nga xamante ne am nañ ci ay loraange ak ay yàqute yu bëree bëri loolee nag njiitu réew mi moom moo ko daal di xamle yeneen juróom-ñaar ñu jàppale ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa ONAS ak yét ndawal buur yi nga xamante ne ñoom ñooy xel di saytu lépp lu jëm ci wàllu ngàcc euh, ndox yooyee président Macky Sall ñu daal di ko teewlu. dëkk yu mel nu Grand Yoff fu meloon ni euh, Philippe Maguilène Senghor fu meloon ni Dalifort ak euh, Medina Gounass bare na ay gox yoo xam ne euh, liggéey boobu ñu jot a def tax na ba naam bu dee ndox mi taana itam waaye ginnaaw gi dem na waaye nag ba tey am na gox yoo xam ne assainissement boobu yàggu fa boo gisee lii ñuy wax déeg bu mbaaw ak bassin versant am mooy lu ko jëlee Kër Massar ba ba ngay yegg Camibas te jaar si Parcelles Assainies yu Kër Massar diggante unité 1 ba unité 20 wala Alaaji Paate nekk na gox yoo xam ne tam liggéey bi war nañ ko mottali ba waxtu wi may waxee ak guddi ak bëccëg sapeur pompier yi ONAS ñu nga fa di liggéey ngir évacuer ndox mi euh, dooleel nañ leen joxaat nañ leen ay moyen ngir ñu yokk seen taxawaay muy ci Ndakaaru muy ci biir Sénégal yëpp ci biir loolu yëkkati nañu enveloppe bu bees bu buy toll ci fukki milliards ginnaaw biñ ma joxee seeni euh, soxla li ñu soxla ngir xeex boobu ñu mën ko gañe euh, mooy fukki milliards yi ñett ñi moom dañ koy jagleel njaboot gi mu nekk ay ndimbal yoo xam ne njaboot yi am jafe-jafe ci inondation bi danañu jot as koppar li ci des nekk ndimbal ci dund wala ay matelas wala lépp loo xam ne danañ ko solowoo mu mel ni aussi war nañ pomper ndox yi parce que bëgguñu ay jàngoro yu mel ni choléra wala xeetu jàngoro yu mel noonu wala bokk jàngoro yu am ci der ñu tuddee ko dermatose euh, yooyu tam war nañ ko xeex bokk na ci li ñu génnee ngir jàppale ko famille yi. maa ngi masawu coono suñu mbokk yi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci taw bi déjà ñu ngi leen di taxaw waaye maa ngi woo képp kuy ndaw nguur gi nga jege population yi ci sa gox moo xam. élu la muy maire yi muy président conseil muy député yi muy képp koo xam ne aussi euh, wala conseiller économique wala conseiller au conseil nga aussi bokk si communauté bi ñi nga xam ne di nga leen indil masawu coono ci tolof tolof yooyu la président Macky Sall doon addu ci la nga xamante ne moom moo jëm ci koppar googe ñu daal di yëkkati ngir rek jàppale ñi daal di loru ci mbënd bi ñoo ngi ko xayma ci fukki milliards ci suñu koppar ñu daal di ko séddali nag ñetti yi dañ ko jagleel ña nga xamante ne daal di nañ ci loru ngir rek ñu mun ci euh, su suturlu yeneen itam lu toll ci juróom-ñaari milliards yi ñu daal di ko jox ñoo nga xamante ne ñoom ñoo fas yéene yëngu ci wàllu wàllub ngàccum euh, ndox yooyee ci Tivaouane la ñu jëm foofee mouvement ànd defar Tiwaawoon moom nag daal na génne lu toll ci fukki camion ya nga xamante ne day ngàcc ndoxu euh, ta ndox yooyu daal di taataan foofee ca dëkk bu sell ba daal di itam génne euh, jumtukaay yu am solo ngir rek ñu daal di ko pompe da loolu nag moo ngi amoon ci teewaayu Babacar Sow. taxaw ci wàllu mbënd mi ci Tivaouane dëkk la bu nga xamee ni askan wi nekk ci gox goxaan yu bëree ndox mi daf leen la jël huit ci njeexitalu ay bés yi mouvement ànd defar bu opérateur économique Abdoulaye ngal gu jël lu toll ci fukki camion hydrocureur pompe ndoxu taw yi nga xamee ni ñi ngi ni xus ci dëkkub Tivaouane boole ci itam ay jumtuwaay yu takku ci wàllum saytu ndox moomee teg ko ci loxo service départemental de l'hygiène bu Tivaouane Abdoulaye Ndiaye Ngalgou président mouvement ànd defar lañ ciy déglu bu Sénégal taw na fi bërkaat démb ñaari fan taw bu bare bëri mu am lu bëri bëri lu mu yàq ñu gis aussi le président de lancer le plan Orsec en aussi bi ñu si xëyee ñu ngi si et je pense que tey incha ndox dootu fi des si Tivaouane matériel bi ñu andi fii ndox mi taa bëri na bu amee ndox mu dugg si kër bi li nga mën def mooy dimbali ko soulager ko ba ndox mi génn ndox mi fu mu taa ay yoo dafay bëri si loolu lañ xalaatee ni aussi woowaa service d'hygiène dañ ngeen xam ne bu leen ko jàppale di ngeen a loo xam ne lii ñu koy rafetlu mooy kilifa yi ngànk ndogal yi ci service départemental de l'hygiène ci diwaanu Tivaouane ñoom ñoo ñee dellu soit ci solo bi nga xamee ni am na ko suñu nemmeekoo ni jamono nawet day bëri ki i xeeti doomu jàngoro yi nga xamee ni ci ndox mi la ñuy nekk ba tax sax Paté Baldé jëruñ ju nekk service départemental de l'hygiène bu Tivaouane di rafetlu lu ni mel matériel bi ci heure la ñëwee

Tivaouane Babacar So doon ci jokkoog yéen pour Sud FM. Birama Ndiaye. leen gërëm leen di leen uh, tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ci kanam tuuti bu juróom-benn waxtu jotee ba teg fanweeri simili rédaction bi dina fi ñëwaat yaatal ko ci français ci wolof laata loolu ñu bàyyi leen ak Sidiki Lom Jaraaf mu daal di taal lamp lu mooy loolu ñu leen di ñaanal panaanub jàmm.